leen baax siyaar waat leen tey jii altine juróom benn fan ci weeru février fukki fan ak juróom ci weeru wolof weeru rajab ah, ñu ñëwaat ci inauguration bi nga xam ne tey jàpp nga historique la ci teewaay ki nga xam ne moo di son excellence président de république Macky Sall ñu tàmbali leen ci liggéey bi mooy ah, fi nga xam ne fi la xale yi di jàngee alquran waaye nag jàmbaar yi nga xam ne ñu waa Touba ca kanam nag defate nañ geneen jàmbaarte goo fekk si nañ jàmbaarte gi ñu leen baaxoo xam ñu koy def ci dëkk bi waaye itam taxaw taxawaay boo xam ne bu euh, fës la bu kenn du natable ci ak tàmbali gis ngeen Serigne Abibou Mbacke moom Serigne Fall mi xam ne moo jiitee euh, Touba ci kër Nour Daay ni walis boo xam ne gis yoroon ko boobee téeméeri million ci nekkoon ñu ko doon joxe ci tàmbali ga yaakaar naa ñu bari bay tegoo nañ ci gët waaye itam yëmuñ ci itam Euh, liggéey bi bi mu tàmbalee ñu jël fa benn bâtiment bu mag boo xam ne li ñu ci def ci euh, alal war naa jege un milliard euh, xayma nañ ko daan moo toll ci huit cent millions tey jii itam nag defaa nañ beneen jëloro joo itam ju wala jeneen jàmbaata goo xam itam lépp rek ngir jàppale sëñ bi ci daara ji la yëkkatiwaat nañ téeméeri million joxaat ko sëñ bi ngir mu dolli ko ca la ñu defoon ngir mu gën ko ma dimbali ko ci yor gi nga xam ne fas na ko yéene yor xale yi jàngal leen waddu leen dëkkal leen te kenn benn dërëm kon tubaa ca kanam wéy di def ay euh, njàmbaat ci dëkk bu teel bi sel bi Touba waaye itam jaare ko ci université bi nga xam ne moo di complexe Cheikhul Khadim kon lu ko jiitu dañuy tàmbali téeméeri million jëlal bâtiment def ci lu jege un milliard maanaam daal huit cent millions defar ko muy bâtiment bi nga xam ne sax jàppale na jamono ji ci la ñu dalal lenn ci xale yu jigéen yi nga xam ne ñoo war a jàng waaye itam bureau yi lenn ci bureau yi nga xam ne ci la ñu yor Euh, daara ji euh, foofu la ñu yor foofu la ñu am bureau ci bâtiment bu yanj boo xam ne démb sax dem nañu fa def reportage kon Touba ci kanam kon tey ji itam joxaat nañ téeméeri million di loo xam ne itam dañ ko def rek lépp ngir daal euh, wéyal wala ànd ak sëñ bi li nga xam ne moo di bëgg-bëggam bi xam ne ku tedd ko Seex Xaadim bokk na ci li mu ñaanoon borom Touba ca kanam nuur daara ni Touba ca kanam ca kaw ca kanam laaj lu ñu man di ko def fonu xam ñaar téeméer rek ngay joxe weeru dee nga mën a bokk ci ñiy jëlee Touba ñiy jëmale Touba kanam